man de soosu laurier laay soog a dégg bi ma juddoo ba tey. mën naa ne de wax nga sa la làkk yi ngay indi wax nga ci bu ne mais soosu laurier. ba ba nu mënul capp nu supp. ñu. supp waaw xel la. day am pomme de terre day am soble nag. ah pomme de terre bi da ciy dem. lijjanti leen kan ak kon. <laughs> nga xalaat Abdou Fall lijjanti loolu loolu jar na génn marché national de gis nga nag nguur gi nguurub Sénégal gii bu ngeen bëggee nguur gi egg. billaay bu ngeen nu xañee càpp pourtant kii nee na comme comme président Macky demoon na demoon na waxtaane waxtaane waxtaane ci ci ci ci ci kii ñebbe gi ah. fële ca ca ca ca Russie. waaw nee na mën nañoo def ndambe solution la. waaw ndambe de diis na nee na nañu ko def puuj paaj. <laughs> puuj paaj tamit day am soble puuj paaj aussi day am soble ndambe yi day am soble. soble mënoo togg te doo ko ci def. man bokk ci sama xalaat. aw démb moo ma servir parce que ñi sant Diaw ak Guèye laay laay waxal tout le temps. foog ma mhm. leen di plaider seen cause. oui. ma yaay daal moo ma ko jox. maman Hadja Basso. mbaxalab naar ba nga xam daa wax ni nit ku ba pare naan ma à di jaween et di giyeen. waaw waaw dafa baax na xam nga bu tawee nii loolu dafay baax démb ndax bëpp laa def pour tooy xepp. ndax nu bopp day am soble day am soble. waaw bopp xar tubaab fa kàll macha allah. def ci dege guy yam ndax dañuy doon estomac di yéeg mu tàng jër. li bi yéeg ca kaw nga dagg ngan di limon def soosu kaan ba seen xel nekku ci. yan daal léegi léegi loolu boo ko xañee askan bi yéen askanu Sénégal loolu eh. jarut a génn marche. waaye bokkul ak capp ba tey de. ba mu ci mënti doon bu ngeen nu ko xañee ñu génn ci biti de difficile jamono ji. ah waaja Béchir Amar Béchir la xaw ma ca Soudan. xam lu ko daaneel mburu kon kii lu koy <laughs> daaneel. waaye Soudan mburoo ko daaneel mburu. loo bëgg wax ni kon da nga bëgg a wax mburu ma la yokk Soudan nga bëgg a wax soble pomme de terre mën naa daaneel nit fii cappa gii ba nu ko bloqué nii maa la may semaine yàlla bu nu ko bloqué nii nit ñi dañuy génn. <laughs> président dañuy génn de. président bu ànd ak ndox mi nii ak yii nii. attention je rigole pas. ba nu mun capp nii. <laughs> Mamy Samb génn sama plateau génn sama plateau nga dem préparer service de titre. lii kenn mësu koo gis léegi man xaaral ma wax ak Marième Faye Sall xam nga moom dafa bëri yërmande. nous refuser notre chapela euh, à la limite de ce qui nous reste. Mhm. pas possible bon il faut arrêter réew bala ngaa tabaxi BRT gis nii dañoo lekk <laughs> lekk nu ngay BRT ka teer mu la paan bu danu bu paanee danu kaa lekk danu ko lekk ñu taxaw nag la xulli nii ñuy bët toog ñu këmm ni ñu àndandoo ndox mi ñëw teer paan BRT can yëpp can ngeen na këm ba pare naan euh, troisième mandat. Eh, wax ko waxu saa neex ba may ñu ceeb waaye may ñu soble Eh, Marème Faye Sall xool ci président man na fi ne nii géye géye nii ñaaw na nag ñaawal nga ko ba mu ñaaw waxi capitee nag sobleeg pomme de terre ga wàcc ci kanu ko xañ nu xañ la yow yaa na bu góor yaa ñu ah dañ ma yóbbante rek sobleeg pomme de terre yaa ñu tooñ ah dañ ma ah, yóbbante rek de te xam nga yóbbante àq la te moom moo ko brossé moo tax ma wax ko ah, waaw eh, kii waa noppi naa ci léegi yow kii géyeen yeeg sekkeen yi ñëw leen jaween yi ak gayeen yi ah, jaween yi ak eh? je suis là pour eux jaween gayeen dellu leen ci cere ji cere cere mbuum baax na ndeyam soble yaa ngi dégg cere siim baax na ndeyam soble waa mais mën na bañam soble gu baree bëri mm-hmm. yaa ngi dégg bi may wax ne yëpp ay solution la nag mm-hmm. dellu leen ci fonde gi moom moom sax man sax nga man dama man sax dafa mel damaa respecté wu da ah, dëgg-dëgg sénégalais sax loolu lañu ñu dëkkee nag ñun ñu sonn nañ de nabu nit ñi dañoo sonn sincèrement nit ñi cereeg meew la ñuy lekk wax sax raan na nga dugg ci kër fekk nit di ko nit ñi bu ñu toggul añ tibb ci boolu reer wu dëgg-dëgg bu ngoon jotee ku ne da ngay xool loo am ci weccit rek mhm. nga dem jënd jënd jee ko ñoo xam fonde yaa xam ci rek meew yaa xam noo def na ba sa biir bi dara am ci rek nga tëdd mhm. koo fi def nag ay soble ñaar téeméer ay pombiteer ñaar téeméer kenn du la faale duñ ko jënd fa lañ leen koy bàyyi kenn du la faale parce que mhm. nit ñi taluñu ko nit ñi li ñu tal mooy ñu fexe ba survivre tey jéem a góor góorgóorlu pour que suba itam ñu mën a lekk ndax suba itam bës la